asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen dareen ak jaam ci Sen Sport 221 lundi 18 septembre 2023 dañuy ñëw ak yéen ci revue de presse bi dooree ko ak kayiti xibaar bii di stade quotidien Sadio Mané la xëy l'international sénégalais gannaaw bi muy ñëwee fii ci réew mi joué fi ab match contre Algérie ñu bari nag jàpp ne moom li ñu doon xaar ci moom dëgg moom Sadio Mané joxewu ko ba mu delloo fële ca Arabie Saoudite moom la ñuy xaar ci moom ma ngi koy joxe bu baax a baax ndax kat mu teggi woon tànkam fa ko delloo Sadio Mané waat na marqué waat na six match six but la dal di dugal ak la nga xam ne mooy al nasr kon jamono bi day bu dee fii doxulit famo mu ngay dox muy arabie saoudite wala mom Sadio Mané international sénégalais bu dee ki nga xamné nak moy mbay Mbaye mbay Mbaye mom dafa dafa wat lolou la di xibar bi di mi nga xamné kat gejj na football ak équipe nationale bu Sénégal depuis mu nekkoon fofu nga xamanteni moy ci réné ak li nga xamanteni kat xëy na woo jàppoon na mu ko don dund kom jafé jafé wala taxone ki nga xamanteni moy Cissé écarté ko ta mom sax mu di woon sàkku loolu le bi nga xamé né kat xëy na na ba gisatul bopam xëy na ci sélection nationale wala bok amatul yéene ci équipe bi ak loo ca mën a dégg daal booba ak léegi déggaatuguñ fenn fuñ ko convoqué moom Mbaye Niang ndax moo bëggul a ñëwaat wala bëgg naa ñëwaat moom daal jamono bi wootuñ ndax ba mu delloo fële nga xam ne wala ba mu demee ca Turquie signé ci club boobu de Adana dafa amal ab doublé ci weekend bi moo tax kii di xibaar bi ne Mbaye Niang judduwaat na balaa ñu xaar moom ba xam ban saison lay def ndax dina fi def lu rëy lu war mën a jaral kii di Cissé mu woowaat ligue sénégalaise football professionnel bi nga xamanteni kat dafa war a dellu voilà ñu wara de nga maam amal li nga xamanteni ne championnat bi tambalé ko le 21 octobre kon date bi dañ ko toxal fimné ni kat le 21 octobre mi wér bi di ñëw bu amé ñaar fakk fan ak ben ci le championnat bi di dor fimné ni nak joueur yi mom ñu ngi déplacer bu baax baax manam mercato bi mu ngi jax gaay nga jënd ak di signé ay joueur waye dal le 21 ci la li nga xamanteni ne championnat bobu wara dor Europe nak mom jamono bi ñom ñu ngay doxal bu baax baax gannaaw bi nga xamé Ligue des champions bi war na ñëw ci weekend bi wala ci semaine bi le ñu gis na nak weekend bi nga xamanteni génn nañu ko moom am na ci club yoo xam ne wane nañu seen bopp bokk na ci Inter de Milan Barcelone ak Manchester City ku ci nekk wane nga sa bopp bu baax a baax Inter dafa daal toroxal ñi seen dëkkandooy di AC Milan Barça moom itam lu nu mel la def ak ñi di waa Real Betis Manchester City naka noonu def ko noonu ñi di waa West Ham United waaye ci yooyu la jamono nee Chelsea Napoli ak Manchester United ñoom ñu ngi ci kàmb gi ndax kat jamono yi ñu ngi dund ay ñu dara lu nit mën a wax waaye daal ñi di waa Manchester United ñoom itam gannaaw bi leen Brighton fekkee foofu nga xamante mooy ca Old Trafford daal di leen duma ñu war a ci li nga xamante mooy Ligue des Champions yi loolu itam kayiti xibaar bi di stade daal dina koy indi bu ñu jógee foofu nag ci Angleterre la dem foofu nag gis nañ English Premier League bi moom weekend bi neexoon na trop am na match yu rëy yoo xamante nit ñi seetaan nañu ko waa Angleterre mu nek bit bo xamanteni ne Leandro Trossard moko daldi marqué mu ne match bobu le day ki nga xamanteni moy Mikel Arteta dafa daldi def rotation da manam changer ay poste indi yeneen joueur waye tam gardien bi nga xamanteni moy David Raya daldi ñew titulaire ci kanamu ki nga xamanteni moy Ramsdale wala lu nek mbir mo xamne ne jaaxaloon na ñu bëri ndax ka wa Angleterre ñom li ñu bëgg moy Ramsdale di jouer mom lañu bëgg moy titulaire ndax mo am temps de jeu ndax dañ ko soxla ci li nga xamanteni moy seen équipe bobu le bala ñuy dem ci li nga xamanteni moy Europe bi waye ki nga xamanteni nak moy Arteta moom xam leer na neena dal ki nga xamanteni moy David Raya dañ ko indi fof pour mu xëccio xëccoo place bi te dafa bëgg concurrence ci équipe moo tax moom nañu jàpp ne maanaam ñaari gardien moom danañ leen nekk di échanger wante tey kii joué keneen euh, ëllëg keneen joué mu ne nañu séntu sax bés ñëw mu daal di dégg loolu yëpp na ko nit ñi xaar ndax ñoom ñaari ñëpp dañu ñëw foofu pour dégg jàpp maanaam dañ pour góolu dañuy liggéey léegi nag concurrence moom la soxla ci seen diggante moo tax mu def choix bi mu def ni ki démb bu dee fet ca dëkkam ndorteel gi taxul koo baax trop ne nañu ne depuis ndorteel gu boobu match lay doon boo xamante ne jàpp nañ ne mooy bi gën a rëy ci semaine bi ci wàllum Ligue des Champions te Man United jógee ci jafe-jafe war a dem foofu la ci Allemagne temps jëno ak Bayern gi nga xamante ne doole rek la loolu nag ñu ngi séntu ne dina gën a yokk ci xar mi kawar ndax Ten Hag jamono bi mu ngi dund jafe-jafe bu jëlee defet foofu la ca Bayern coow dana ko gën a topp loolu tam kayiti xibaar bi di Mirosport dal dina ci ñëw bu ñu jógee Angleterre France la ñuy dem France nag foofu bu ñuy xool club bi nga xam ne mooy Olympique Lyonnais moom jamono bi ñoom itam ñu ngi ci coow a li nga xamante mooy weekend bi waaye benn poñ boobu ñu am de ndax moo leen jëlee ci ndadde ga ñu nekkoon ñoom ndadde la ñu nekkoon am benn poñ seen diggante ak Le Havre di am benn poñ loolu tax jamono bi nee na génn googu ñu nekkoon waaye mbir mi doxagul de mu ne liggéey bu bëree bëri la am ay jubbanti yu sakkan war nañ ko def ci équipe boobu nga xam ne mooy olympique lyonnais ndax kat seen ndorteeli saison baaxul dara voilà ki nga xamante ne nag leen ni war a tàggat ci li nga xamante mooy euh, saison yi ñu dëkkmal muy Fabio Grosso war nañ koo di nga maam présenté tey jile su ko defee mu dal di tàmbale li nga xamante mooy liggéey waaye coppite yu ba moom la def ci match bi nga xam ne doxoon seen digganteeg Toulouse dafa tax ñu bëri seen xel tey ndax ñoom dañoo war a dem sax ci Europa League war a dem ci Amsterdam war a fa jouer voilà ci li nga xamante ne mooy Europa League war ci jógee amaat beneen match bu rëy seen digganteeg Paris Saint-Germain ci dimanche bi lee mën ñaari match yu rëy yoo xamante ne mu ngi taxaw ci seen kanam waaye lu ñuy wane démb day voilà ci seen stade mu ne loolu waaye daal ni démb nee Toulouse googu nga ñu doon footballal Toulouse nga xamante jamono bi mën nañu wax ne ñëpp a ko tane benn victoire képp la am bi ñu tàmbalee saison bi ak léegi Marseille mënulu ko dara match bu bon la def ni démb mu ne tax na ba sax supporters yi am na ñoo xam dañoo mer ba dañ leen doon buu maanaam di leen yooxoo mën loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ni di waa Marseille tax na maanaam ñu bëri am jiixi jaaxa ci a def li a dégg jeudi bi war nañoo xam moy mooy ab classico bok fofu nga xamanteni moy ci France dimanche bi lay don di xaar ñi di wa Olympique Marseille bu joggé France gogo dañuy dem fele ci Espagne fofu nak buñu xolé ñi di wa Real Madrid fess nañ ci kayit xibaar bi di as ndax kan ñoom li ci dembu dañoo am jafé jafé ci kanamu ñi di wa Real Sociedad ci ndortel bi way ñu mujjé dabé voilà néna jamono bi nak ñi nga xamne ñoo di wa Real Madrid dañuy wéy di dess ci bop classement bi motax as né même Kubo sax mënul dara ci Real Madrid loolu la xamlé mënu même Kudo Kubo sax mënul door ñi di wa Real sonal na la nak di ki dembu voilà surtout premier mi-temps bi xaw na lan tek coono waye nak gars réagir nañu na Real Madrid équipe la bo xamné mom fek match bi jeexul anytime mën na ñëw yaakaar naa ñu bëri nañ ci xel ci Ligue des Champions yi nga xamante wessu nañu ko waye nak néna ki di Federico Valverde ak ki nga xamante moy mooy Joselu Mato ñoo dal di marquer but yoy nga xamante ñom am nañu ko néna ki kii di Joselu day bu ñuy xol fi ni melni ni poste ab Karim Benzema bobu mom fil nako de gëna bi nga xamné Vinicius dafa blessé mom muy jouer ci place am ñu bari jappone kat mom dañ ko fi indi ni rek pour muy xaarani Mbappé waye dal gis nañu ne mom ki di Joselu muy commencer prouver di wone bopam te loolu jàpp nañ ne élément la bu am solo lo ko ci sax xam na ko xam le na ko di Ancelotti day kii di xoselu élément la boo xam ne ñoom waa Real Madrid at yi yëpp amuñu ko maanaam li wax voilà numéro neuf boo xamante ni euh, am na qualité yi kii di xoselu daal di am mu ne ñoom waa Real at yi yëpp dañoo manqué lu nu mel te loolu nag mooy ki nga li nga xam ne moom xoselu mu ngi koy wane ci équipe boobu kon démb bit boobu mu dugal moo leen may ndam ci kanamu ñi waa Real Sociedad ñaari bal ci benn waaye ñi di dem moo leen sauvé ndax bit bu ñu leen doon duggal Ramos moom moo tax ba bal ba duggut loola tax ñoom ñi daldi di am dam ci li nga xamante ne mooy jogante googule moo tax jamono bi ñu ngi ci ay loxo yu wóor gannaaw bi nga xamante ne di Sergio Ramos delluwaat na foofu nga xamante ne foofu lañ ko formé balaa mu fay jógee di dem foofu nga xam ne mooy Real Madrid ki nga xam ne nekk na fa capitaine gagné fa ay trophée yu bari ak club boobulee bu ñu jógee foofu dañuy jël kayiti xibaar bi di sport moom nag dafa dal di ñëw ci Barcelone bi nga xamante dañoo def ci weekend bi match bu rëy bi nga xam ne doxoon seen diggante ak Real Betis rawatina seen ñaari gone yu bees yi di João Cancelo ak kii di João Félix mu ñaari portugais yi nga xam ne ku nekk ci ñoom da nga sa premier but ci première titularisation maanaam premier match bi nga njëkk a door daal di ci marqué ab but loolu nekk lu am solo loo xamante ne ni nañ ci bàyyi xel na ki nga xamantene moy Jao Flex muy Brodam muy frère am bi bok manam dina am lo xamantene lu bari dina ko wone te lol tambalé nañ koy gis ndax xam nga ci weekend bi rek marqué na bit moy bi bu ñëk ci match boobule te it def performance yu jéggi dayo waye amna na yeneen yu ñëw mu na ci gaay yi xel waaye tam ñëw na ci li nga xamantene moy walam euh, Ligue des Champions bi nga xamantene ñi di wa Barcelone war nañ cey dem Sa bi nga xamantene voilà jamono bi ñu ngi koy xaar mu jaar ci tanku ki di euh, Luis Enrique ak ki di Pep Guardiola néna ñom ñet ñi ñëpp sax ku nekk ci ñom manam man nañ wax né war nañu saytu seen bir man nañ wax ne daal exemple la ñuy dem exemple la ñuy dem ci li nga xamante ne mooy semaine bi lee ndax kat bu ñu xoolee ki nga xamante ne mooy Xavi Hernandez bi mu ñëwee Barcelone ba tey at bu jot la nekkoo fi lenn lu leen dina yóbbu ay Europa League ndax kat première saison bi mu ñëwee fekk ki nga xamante ni mooy voilà kii di commande euh, dal di am jafe-jafe ñu dal di koy jox équipe bi ba mu joué lañ ca teg mooy yóbbu leen ci Europa League fa la mujjee ji daaw ñu ne Xavi mooy tàmbali voilà ren ji mooy tàmbali kenn yaa xalu ko moom liggéey na mooy jël équipe bi yóbbu ko ci Ligue des champions bi dem gagné li nga xamante ne mooy trophée mu ñëw dal di jeexaleeti ci li nga xamante ne mooy Europa League mu ne ren ji nag voilà kon ñu ngi koy xaar beneen Tesla am boo xamante ni mu ngi koy xaar ñëpp a ngi ko ciy xaar gannaaw bi mu gagné La Liga bi mooy mu ñëw dal di wane lu rëy ci Ligue des champions ba génn wala sax mu dem gagné li xamante ni mooy Ligue des champions te loolu defagu ko bi mu ñëwee ak léegi bu de bu a am li ñu tuddee ba a jox ñi di waa Manchester léegi Barcelone ñu ngi daw ci gannaaw Ligue des champions te lan moo tax ku nekk ci ñoom ne na ngi lay xaar te ab test nga am boo xamante ne ñu ngi koy xaar ci yow ci li nga xamante ne boo semaine bi la ñeel wàllum Ligue des Champions journal bi yemu ci ñëw na ba tey ci match bi nga xamante ne ñi de Real Madrid ñu ngi ko doon am seen diggante ak Real Sociedad ne Real Madrid souffrir na de souffrir dëgg la def sonn daal def na ko keroog balaa muy am ndam waaye nag mujjee na am ndam te fi ne ni mooy wéy classement bi loolu itam kayiti xibaar bi di sport dal dina ci ñëw bu ñëwee ci kayiti xibaar bi di Mundo Deportivo ci wàllum football ba tey dafa ñëw ci match bi nga xam doon na bi ñu ëpp lu ñu marqué ay bit loolu nag daf li leen ko bàyyi mooy seen attaque bu am doole boo xam ne am nañ ko maanaam seen ndorteeli saison daal am na solo ñu ngi dugal ay bit yu bëri ñooy ñaar ñaareelu équipe bi nga xam ne moo ëpp lu ma dugal ay bit kon ñoom ñoo gën a baax ab attaque ci li nga xamante ne mooy ndorteel saison bi loolu te mu doon di portifo dal dina ci ñëw voilà gars yi loolu lañ fi gënoon mën a jàpp kon ci kayit yi xibaar yi di leen wax ngeen contre suivre Sen Sport de 120 ans the best sport news channel